salaamaaleykum mbokk internet yu Thiès Info ñu ngi leen di yoot ci bu baax a baax ku ci nekk sa tur ak sa sant jaajëfal leen saa su nekk seen ànd ak ñun fii ci biir euh, Thiès Info ñu dikkaat ak yéen comme nañu ko safoo daan defee seen émission bi la di politique à Thiès nga xamante ni saa su nekk itam dañu fi dalal ay kàngami politique ñu fas yéene sikk waxtaan jëmale ci langu politique yi tey nag ñu dalal fii ki nga xamante ni wala dalalaat sax nag ki nga xamante ni moom mooy Ousseynou Diouf nekk responsable politique APR Thiès leen ko présenté ndax ñëpp xam nañ ko ñu fas yéene sekk ak moom itam waxtaan bu yaa jëmale ci politique fi mu toll jamono ji ci Thiès rawatina élection yi nga xamante ne nii eh, ñu ngi koy dëgmal waaye itam yeneen ponk yu baree bari laataa loolu nag dama koy bàyyi mu daal di nuyoo ak mbokk internetu Thiès info waaye itam ñi nga xamante ne ñooy askanu Sénégal gi ñuy seetaan Ousseynou ñu ngi lay nuyu. Euh, jërëjëf Rokhaya maa ngi lay fay di nuyu Ada Sey Latir seen patron ak. Euh, tout le personnel de Thiès Info di leen ci dalal bi ngeen ma dalal ci seen émission politique ngir ñu waxtaanee lépp lu nga xam ne soxal na Thiès ci wàllu politique ak ci yeneen wàll ak ci yeneen wàll fi ñu toll nii jërëjëf. alors euh, Ousseynou li nga xamante ni moom laay dooree ak yow mooy euh, li nga xamante ni moom moo fi mujjee mën naa ko wax fii ci diwaanu Thiès kaay barki Demba Ndiaye ki nga xamante ne moom mooy sa naataango Abdou Mbow nekk premier vice président assemblée def na fi meeting de remobilisation ci ni ñu ko mën a tuddee. kàngami APR yu bëri bëri daal di cee daje euh, ñu waxtaanee itam li nga xamante ni moom mooy mburoog soow mi fii ci diwaanu Thiès kaay ndax na umpalewu ñu itam ni am na ay ñagas-ñagas ci biir yéen ñi nga xamante ni yéen yéen a ko sekk ku ci nekk yëkkandi ci kàddu daal di wax ki nga xamante ni moom moo di Maodo Malick Mbaye su ma ko jëlee moom itam euh, sànni na ci kàddu waaye wax na ni itam euh, liggéey nañ loo xamante ni Thiès yéen leaders yi jóge ngeen ci 7 pour cent dem ci quarante pour cent mu ni mën a ngeen tamit combat yoo xamante ni tous les combats possibles et imaginables tey lan mooy sa lecture ak sa analyse ci loolu. waaw jërëjëf sama lecture ak sama analyse ci loolu je pense que junjoon naa ko fan yi passé euh, pour ma part personnellement xaw ma nag ñeneen ñi ku ci nekk sa bopp nga xam. li ma mën a wax moom mooy depuis ba ñu perte élection 2014 yi ñu jële ci gàcce ak naqar bu metti ca lañ delluwaat di defarwaat pour yeneen élection locale yi di ñëw loolu bokk na ci siège bi ngeen toog ni tey jii ñu dem ba xam ne mbooloo mi xajatul ci kër xajatul ci fenn fu dul ñu wutal leen un siège présentable kon nga xam ne caaxaane wuñu li ñuy def foowee ko lu ñu gëm la j'ai parlé avec plusieurs mouvements ou bien plusieurs entités politiques ici à Thiès yu fi nekk ba ci Y'en pour lan changer la donne changer la donne pas puusal ñi fi nekk parce que dañ ne a bëgg a ñu dem non changé la donne parce que dañoo soxla beneen gouvernance locale ici à dañoo soxla yeneen façon doxalin ici à dañoo soxla beneen ligne directrice ba nga xam ne te dinañ ci teg Thiès waaye mu ñu mun a atteindre seen développement parce que gis nga quand machine ubien un groupe Et là, depuis un certain temps, day euh, il devient oisif, d'autres day tayal, day paresseux. Comme le dit l'adage, on ne change pas une, une, une équipe qui gagne. Mais dans toute vie, il une courbe de croissance ba nga xam ne tey bu ko nit ki attendre dootul productif day chuter. Là, il faut a besoin du lan ay nit ñi nga xam ne tey jii nii dañoo am xarañ nañ seen seen seen am nañ énergie pour pour pour lan mettre ko à la disposition des Thiessois pour doxal dëkk bi mbir mi nag nekkul la nga xam ne dañ koy doon ci ndey wala ci baay wala ci maam collectivité locale yi ñu yor képp kuy doomu Thiès te aspirer vraiment pour liggéeyal Thiès mais ambition boobu day nekk ambition bu légitime Euh, ñu bokk ci ay formation politique ak ci ak ci ay coalition politique nga xam ne tey jii nii yàlla nattoon nañu tey ñu dem ba fi ñu nekk fii ci biir Thiès on est obligé ñun Benno Bokk Yaakaar ñu dem avec le réew mi bi loolu amee ñu rafetlu ko ndax toujours fii ci biir Thiès dama jàpp ni. Euh, ñun doomi Thiès bu ñu bàyyee intérêt personnel yi xool intérêt général ànd bi mooy suñu njëriñ ñu rafetlu ko rafetlu la main tendue du président Macky Sall rafetlu la grandeur de l'homme d'État Idrissa Seck bi nga xam ne ñëw na taxaw pour lan ñu liggéey dëkk bi loolu nag yaakaar naa c'était un appel à tous les responsables politiques thiessois pour lan ñu ànd juboo liggéey la main dans la main ah, mais bu loolu xase ba am rafetal rek a fi des kon nag euh, liñ ñaan cër dañ koy joxante bu ñu xasee bay rafetal ah ñu jëm ci ay jongante ñu ñaan d'abord yàlla may ñu ndam ndax euh, j'ai l'impression que sax euh, par rapport ak déclaration yi déggoon ak ñu réaction yi def yëpp ñun ñëpp ah jàpp nañ ne am nañ ndam ba pare te amaguñu ndam dañuy dem jongante te ñi ñuy jonganteel bu ñu leen xeeb c'est de très grande coalition dem rek ci gàmmu gi bi may def euh, le tour des maisons des foyers religieux tase naa fa waa Info ñoom kajaak yooyu ci ngoon gi ma dem kër Xaadim Lo Gaydel ak yeneen kër yi mais j'ai vu la coalition euh, Yewwi Askan Wi avec docteur Babacar Diop ñoom Diawara euh, Pastef et tout gars yi dañ ko gëm ñoo ngi liggéey liggéey bu metti liggéey bu am solo ñun nag ñu jàpp ne gañe nañ ba pare eh, way bu ñu ñu neen waaw du ñu xajal fii doo doo xajalaaw keefee te ñun xamaguñ ndax ndax dinañ gañ wala duñu gañe kon dañuy ñaan yàlla d'abord yàlla may ñu ndam ba pare bu ñu yàlla mayee ndam ay lay yéwén na rafet ndax cër dañ koy joxante parce que situation politique bi moo ñu moo ñu ci obligé loolu nag comme déclaration bi ma waxoon Euh, nit ku nekk dangay ngay xam itam li nga xam ne moo mën a ne ndax ñaar dina yàq ànd ngay laaj lu ñu la mënta may li ngay laaj nit ki mu nekk la nga xam ne moom leer na du ko joxe wala ñu bañal la la nga xam ne mën na nekk kon dañoo xas boo wax ni mburoog soow am na loo mënta ñàkk te lu mënta ñàkk foofu moo am moo taxoon ma lancé message boobu samay naataangu politique mais aussi suñuy kilifa ba ñu xam ne kat par rapport ak message bi ñu déglu ndax politique moom xëy na day am ñi xam ne dañuy yëglu bu ñu yëgloo li ñu doon xaar moom mooy seeni moroomi naataango politique yi ñu bokkal parti ah def ay déclaration rectificative mais nag comme loolu amul ñu itam dañuy yëglu ba ñu xam ne bëgg-bëgg yi nii la demee et noonu la war a mën a demee sax justement wax nga ko say biir wax président lancé na li nga xamante ne moom mooy appel jëmale ci mburoog soow bi yow itam nee nga rafetal rek moom moo fi des mais ba tey problème am na parce que mburoog soow bi mënul nekk réalité fii ci Thiès kay en tout cas euh, man mi toog def naa émission ak yeneen leader yu dul yow def naa ci itam micro trottoir waaye ñu bari ñu lay wax mooy euh, mbir mi ci kaw lay am mais soow bi mburu mi fi mu ne ci suuf jaxasoowul lan moo tax léegi àndandoo boobu mënul am tey justement yaa ngi wax léegi yéen a ngi bàkku te demagu leen ca làmb ja est que loolu itam du leen indil gàllankoor waaw xam nga comme ni nga ko waxee on a tous été mis devant le fait accompli ñu bëri dañoo umpale woon ne président Macky ak président Idi ñoo ngi waxtaan mais ñaar leaders bu ñu xasee ba déggoo on ne peut que suivre le train mais nag effectivement ni nga ko waxee sur la base au niveau de la base il de réels problème y a de réels pour ñu mën a déggoo déjà man je pense que la première des erreurs bi ñu def bi ñaari kilifa yi déggoo mais waroon nañoo woote benn daje à la base responsable yi daje ñu joxante loxo baalamtu ak waxante dëgg parce que politique aussi dañuy dañuy waxante dëgg nekkul un jeu d'enfant ba nga xam ne d'accord ñaari kilifa yi daje nañ ñu bon ñu tàppanteeg yooyu noonu no parce que askan waa ngi taxaw di ñu seetaan. ñu waxante dëgg lan moo dox ak lan moo doxul yéen erreur ngeen def nan lañ koy rectifier mais il faut un cadre de concertation mais y'en a pas waxuma la y a pas de cadre de concertation mais restitution d'information mais amul. baal ma doguma la mais bu fekkente ne situation bi toll na foofu tey nga yaakaar ni ànd bi nekkul ànd boo xamante ne ñaari mbër yi ko sekk ñoom seeni intérêt personnel kese la. loolu duma ci mën a sori ndax xam nga li tax. terme de référence ya tax ñoom ñaar ñu waxtaan ba déggoo vraiment dama ko umpale loolu man xaw ma ko mais tey vraiment bu doon xam naa ko dinaa mën a wax ne intérêt personnel moo tax wala intérêt askan wi mais gëm naa ne intérêt askan wi mooy mooy mooy mooy primé au delà ci kaw intérêt personnel yi parce que tey fii Sénégal toll. tey ak chantier yi nga xam ne président Macky Sall ubbi na ko yëpp yii di yi nekk ci yoon pour baax yi ngi commencé gul yi ngi nekk digg doom yaakaar naa intérêt personnel du tax ñaari leader yooyu noonu tey naan dañuy nas ànd bi intérêt bi moom mooy lan on doit construire un état l'état du Sénégal dans un temps mais il faut que toutes les forces vives de la nation les forces politiques se rejoignent wala bopp bokk ci la grande coalition présidentielle pour déjà l'apaisement du climat politique mais aussi ku ci nekk la yàlla jox ci xel ak xalaat nga indi ko parce que parce que tamit dañu waxante dëgg un climat politique tendu chaque jour nit ñi di xasantee ki ku ci nekk di sànni sa morom ay invective ak yooyu noonu doon na tax ba tey jii nii ni ñu war concentre concentrer sur les grands projets de développement pour liggéey dëkk bi tout le temps on divertissait lu gouvernement ci ay détails ay. problème politique yi nga xam ne presse bi topp ci une certaine presse nga xam ne ñoom itam ci loolu lañuy ñuy liggéey loolu la ñuy dund seen intérêt moom mooy toujours di gonfler ay information wala di créer sax ay wax fu mu amul pour lan toujours ñoom it seen seen affaire di dox mais il fallait calmer d'abord le climat politique pour que nit ñi mën a concentrer wu sur l'aspect développement bi nga xam ne moom mooy jëriñ Sénégal yi bon ñu dellusiwaat ci par rapport aux militants ak aux responsables à la base loolu li tax mu nekk problème wax naa la ko léegi déjà concertation amul après eh, bi ñaari kilifa yi déggoo mais on n'a pas de de concertation tey da nga gis le SEN bi ñuy wax secrétariat exécutif national ñaata yoon la ñuy réunion information ñun par la presse lañ koy amee ñun ñooy dem gëstu ji wala ñu woo suñu yenn naataango politique yi mais am politique day am restitution d' information ñu ne ah kilifa gi kat woo na seen secrétariat exécutif national waxtaan nañ lii lañ décidé. programme euh, lii la euh, benn ligne ligne liñ directrice bi la teg lii fii lañ jëm fii ak fii ak fii ñu dajale les responsables à la base ñoom it pour qu'il soit au même niveau d'information ak ñi ci des ñëpp ku ci génn di wax nga xam looy wax wala ba ku ci war a jëf xam lañ ngay jëfee y a trop de manquement ci suñu façon de faire de la politique ba nga xam ne tey jii nii lépp la nga xam ne ay coalition ak yu kan xamul ñoo ngi koy teg day am ay rëq-rëq manquement te buñ ko gaaw rectifier defar ko boo deful ndànk li ñuy bëgg ci yàqu-yàqu lay mujjee. yaa ngi tudd léegi say biir wax climat politique tendu tey tamit actualité m'oblige mu posé la question boobu gis nañ euh, fan yi nga xamante ne moom lañ génn le cas Ousmane Sonko ak Doudou Ka seen tase ñoom ñaar Ziguinchor ba mu jur fa ay nit yu ci jëlee ay gaañu gaañu mara day taale leneen mënoon na cee xew ñu ko yàlla bu fekkente ne tey euh, Sénégal politique noonu lay demee bu fekkente ne man ak Ousseynou Diouf euh, bokkuñu xalaat rek fu ñu tase ñun ñaar dañuy dañuy rayante daanaka noonu lañ ko mën a waxee est-ce que mbir mi dina sotti rawatina élection yi nga xamante ni ci lañ jub suñu soxla jàmm ci Sénégal mais déjà yow lan mooy sa lecture ci ñaari leader yooyu la fa xew keroog ca Ziguinchor. ñoom ñaar ñëpp euh, c'est des responsables politiques ay doomi Casamance lañ ku ci nekk yaa ngi doon def sa manifestation avec say jeunes. jeune nag moom buñ ko xasee ba wax déjà immati immaturité seen xel du du xalaat ci yenn yi seen seen yaram day tàng dañuy bëri doole te il suffit de peu pour que ñu gaaw xeex wala ñu deret tuur wala ñu indi fitna mais je pense que les responsables ñoom seen bopp ñoom ñoo war a am mat ak dal gu day nii tey bu fekkee diw damaa ñëw ci teel bërëb ñëw bug faa def manifestation mu ñëw fekk sama beneen naataango politique d'autant plus que bokkuñu parti jubóowuñu ma am mat gu day ni kat ma woo samay jeunes kat yoon bii wala boog mbedd bii ñu bëggoon jaar nañ leen ko bàyyi ñu wiiri dem jaari ne la wala ñu dem fene ba ñuy pare seen activité ñu doog ñëw wala ñu dem xaneen fu ñu xoolee def suñuy activité mais bu fekkee nag responsable politique dalaa jiitu ci benn milieu ak ay nitam nga ñëw ne kut kut man itam damay def événement ci même milieu bi ah laa bu boobaa itam lu fa xew jàppal ne kat yow mi mujjee ñëw ak say ndaw yaa fa indi ay attroupement wala yaa fa indi problème ndax ndaw yi moom kenn mu leen contrôler dañuy taxaw léegi di saagante tojante bopp lii am am après ce sera trop mais ñoom nañ am mat mat gu day ni tey jii nii ku ci def benn événement mu leer ko ni tey bu defee lii dem fa fekk fa nit ak ay nitam bu ko defee jàmmaarloo dafay am nañ am matu annulé seen programme puusal ko ba kooku ba sama weesu keneen ki ñëw. mais loolu tamit yoon la parce que bu demee ba ni réew moo xamante ne nii euh, réew mu mel ni Sénégal la tey jii Casamance Ousmane Sonko moomu ko Doudou Ka moomu ko man am naa droit dem fa Ziguinchor autant pour moi cest à Sénégal ku ci nekk am na droit bu demee ba tey jii politique tey Ousseynou Diouf bu fekkente ne dafa woote wooteem man Rokhaya Ndiaye amoo droit fa sama mouvement parce que bu ñu fa esprit bi d'abord moom moo warul mais comme ni ma la ko waxee les gens la la foule une foule qui est déchaînée on ne peut te jur souvent ci la saay-saay si profito di def ay ay ay ay ay ay affaire yu doy waar gis nañ ko li fi xewoon ci événement mars yi fetal yi fi génn ak yooyu yëpp kooku bu ñu la waxee ne c'est des c'est des c'est des politiques donc da nga naan déedéet ay bande ci rax moo tax ma ne kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy jiite maas yi ñoom ñooy jiite ful yi nañ di prévoir yenn yi nga xam ne tey bu ñu forcer ay programme ci benn milieu entre deux responsables yi nga xam ne bokkuñu parti te jubawuñu leer na fii tey jii bu ñu fi forcer ñaari programme jàmmaarloo dina fi am te bu fi jàmmaarloo amee bakken mun na fee tuuru bu ñu xalaatee conséquence yi ñu moytu loolu jàmm moo gën ay xëy na nag parce que loolu sax tey jii ni bu fekkoon am nañ mat yenn maturité yi ñaari événement mu yëpp mën na faa am kii organiser kii organiser ku pare dem ñibbi mais comme amuñu maturité boobu noonu te xale yi kenn mu leen maîtriser mais yaa xeetu yow mi nga xam ne yow yaa kilifa gi yow yaa responsable bi mais fexeel ba bu kenn bañ a tuur coow bañ faa am nga nga ñu xool nu ñuy arrangé ba ñaari événement yi duñ fa daje ndax bu ñu dajee toujours histoire ci histoire lay mujjee man daal lool laa ci sama xalaat ndax mais tant que ñoo ngi forcé ay programme wala diw di organiser diw tamit bëgg a organiser te xale yi kenn mënu leen maîtriser ci ay fitna rek lay mujjee quoi. élection locale yi nga xamante ni ñu ngi ko dëgmal 23 janvier 2022 incha allah daanaka euh, egsi nañ ci cëppaandaw gi euh, fii ci diwaanu Thiès kay candidature yi mu ngi jaaba jonge fu ne bu nekkee mairie ville candidature yi bëri na macha allah ouest ak est kazalika euh, ñaari coalition yëpp ku ci nekk yaa ngi samp say candidat problème bi mooy président de la république Macky Sall moom mooy tranché moom mooy def choix am jii nit ñi ñu ngi posé wu la question choix bi ci ban baa la war a bokk su su fekkente dañu war a wax ni askan wi ñoom ci seen bopp ñoo war a seen bopp candidat bi nga xamante ne moom moo leen di gérer seen gox euh, ci beneen côté bi président de la république moom itam moom mooy xool leader ba nga xamante ne moom moo ko neex mu jàpp ni kii moo gën ci bile gox mu tànn ko fa choix boobu est que du nekk problème. Euh, xam nga par rapport à ça jotoon naa ci avancé l'idéal c'est que les acteurs politiques se regroupent ñu définir les profils xool les meilleurs. ñu porté ko pour que président valide ko war a boog les présidents valide ko mais tey bu fekkee su si suñu matadi loolu ñun mënuñu ko réussir ba président war a arbitrer war a jël jël boppam ay euh, ay profil mën na jël ay profil ya nga xam ne tey au niveau local euh, bu ñu ci jiitalee euh, bu ñu demee élection yeneen coalition la ñuy voteel parce que tout simplement ki ñuy jiital ci suñu coalition kooku Ceesuwaay euh, joxuñu ko bopp kon nañ xool ñi nga xam ne Ceesuwaay jox nañ leen bopp mooy ñi jege askan wi di leen dimbali di nekk ak ñoom suba ngoon dégg ñu leen ci coowal suuf dégg ñu leen ci détournement dégg ñu leen ci benn ñombe ba nga xam ne askan wi da daf leen di xeebee. loolu c' est très important dañoo yaakaar ne nag bon tëgg ay meeting woote ci ay saal mais bu ma la waxee ne la actuellement je je suis dans deux groupes de Thiessois de la jaspora ñi nga xam ni ñoom ñëpp xam nga lu ñu joxe comme consigne de vote voter tout sauf ñi fi nekkoon xam nga li tax ñu ci bëri dañoo nekk bitim réew di daan seen doole ñu jël seen suuf jaay. ki dagg biyeem dem di daan doole bi bitim réew pour suturaal yaayam suturaal ay rakkam suturaal ay frèram nga jël suufam jaay kooku dina la voté waatal et c'est très légitime imagine-toi presque 2000 2000 2000 membres 2000 membres ku ci nekk sa kër au moins am na 5 ñenn ñi 10 votants tu multiplies 2000 par cinq wala par 10 ça te fait combien de votants ñooñu bu ñu leen ñàkkee fan lañ jëm. moo tax les véritables préoccupations des populations dañ ko dañ cee war a toog waxtaanee ko parce que ci en fait c'est des sur la base de programme sur la base de li nga xam ne tey profil yi ñi nga xam ne bëgg nañu jiite nañ jiitu jiituñu exposé nañ ko au soit comme projet comme li nga xam ne ñëw nañ pour fajal leen seeni i bëgg-bëgg seen i soxla seet mais ñooñu la ñuy fal mais ñu falaat ka nga xam ne day ñëwaat di jaay suufu jàmbur yi. du ñu falaat ka nga xam ne tey day na keesu euh, fonds publics yi li ma lay wax c'est extrêmement important man et puis je vais vous donner euh, faire une révélation ñun Thiessois yi on est assis sur un véritable danger foncier ici à Thiès li may wax lu leer la y un réseau de malfaiteurs yuy tàppe ay kayit ba tey di ko dugal dans le circuit de l'administratif di jaay suufu jàmbur yi kooku moom c'est une révélation man Ousseynou Diouf man maa ko ma ne a un réseau de de de ba tey di tàppe ay këyit da xëy sa terrain wala sa kër ñoo la defal nañ ci diw bàyyi jaay nañ ko par rapport à ça j'ai adressé un courrier au gouverneur de Thiès par lettre en date du 18 mai 2021 réceptionné sous le numéro 1925 pour attirer son attention sur ça courrier bi def naa ci ampliation procureur et dans ce courrier je lui recommandais quatre points essentiels benn bi mu bloquer ses documents deux de concert avec les chefs de service technique ñu xool lépp li nga xam ne falsification la ñu retiré ko dans le circuit administratif trois mu moytu itam di approuver des documents yi nga xam ne tey jii nii légalul quatre mu de concert avec le procureur de la république ñu ubbi une information judiciaire place par rapport à sa ce même document par courrier déchargé je l'ai adressé au procureur parce que man je ne peux plus comprendre tey jii nii. est que tey jii am nga réponse de leur part. mais amu benn réponse et c'est ce dangereux des cee mais des cee soit bon teint ñoo ngi ñoo ngi spolier seen suuf. il y a aucune réaction de, des autorités administratives aucune réaction des autorités locales kenn nangu wu cee wax boo porté plainte les il y a un dilatoire les dossiers sont de n'ont aucune réponse mais loolu lu doy waar la mais Thiès a besoin de changement bu may wax changement c'est pas tout simplement sur le plan économique mais sur la gouvernance locale dañoo soxla ay kilifa yi nga xam ne tey bu Thiès yi amee problème dañuy jug fëgg table bi régler problème bi mais lii nga yaakaar li li li jàmmale la ci ci ci réew ay nit nekk war a réseau parallèle à l'administration di tàppe ay këyit di jaay guddeeg bëccëg te kenn du ci wax jaay ay suufi jàmbur on n'est plus en sécurité ña nekk bitim réew di daan seen doole pour jënd suuf ne sont plus en sécurité ñun ñu fi dëkk on n'est plus en sécurité et puis man man man man personnellement suuf terrain bu ma jëndaloon suma mag fii rue de Dakar 2 ba ñu joxoon ko ay temps benn politicien ba ñu justice dugg ci ba ñu àtte ba mu jeex ba ma toogaat bizarrement ba tey jii ñu ne ma am na keneen beneen kilifa guñ ci tàppeel baay mais yaa xëyti ñun fan lañ jëm. justement problème bi ngay wax muy problème foncier boobu mën nañu wax ni Thiès problème am bi gën a mag loolu la parce que chaque semaine euh, ñu génne la benn problème bu ci mujj tudd nañ ci receveur des domaines du ma ci duma ci dellusi si problème Mbourkat extension kenn waxaalew ko ak yeneen ak yeneen yi ngay tudd nii muy euh, route de Dakar 2 mais tey ji problème bu fekkente ne euh, politiciens ñu ngi laxasu ci biir gouvernant yaa ngi ci biir tey jii askan wi itam ñu war a ñëw tànn ci biir politiciens yooyu ñi nga xamante ne ñoom la ñuy ji ñoom ñoo leen di jiite yooyu politiciens wala ñenn ci ñoom encore ñooy daggaat seen i suuf comme ni nga ko wax ñu nekk bitim réew di daan seen doole dem di ko jox seeni i ñooñ wala yu ni mel finalement kan la askan wi war a def confiance. mais nga yaakaar ne yow bi nekk maire tey jaay ay suufi jàmbur tu penses que gars yi dinañ la voté laat pour nga faluwaat bu boobaa doo jaay ay suuf kër yi ñu dëkk ngay jaay da nga leen di génne jaay kër ya te foofu lañ nar a yegg et j'ai tiré sur la sonnette d'alarme man personnellement Ousseynou Diouf bind naa présidence de la république bind naa ministre de l' intérieur bind naa haut commandant de la gendarmerie nag ak ministère de la justice moo ma dese bind naa autorités yi fi nekk yëpp amul kenn ku ma yëgul ku ku ne yëgul sa yëgul samay gisul samay courrier procureur gouverneur préfet domaine caras urbanisme mais nag dama ne li ci biir yëpp ku ko bëgg a wax bu mujjee bu bu yàggee ñu ne la yow yaa ay gaaf mais lu doy waar li nga ngi tudd léegi problème de de de de receveur mais moom laa lay wax mais lu doy waar mais mais bu doy waar te nag li fi nekk ñëpp xam nañ ko de xanaa kañ dof-dof lu ak sëgg mais nag da xam ne ne dossier yi tànki kanam la am amul tànki ginnaaw suuf dafa sax nekk la nga xam ne dafa sax ci xol kookoon nangul ala kule al bu amee fulaak fayda dana toppiwaat jëli ci alalam. il faut que d'abord. bu fekkente ne nga baal ma ci dog bi jaay doole daf ci am yaa ngi wax kooku nag dina ci topp waat jëli alalam comme ni ñuy wax ñu baal ma ci terme bi ñi nga xamante ne leen wax ay baadoo la ñu baal ma bu baax a baax ki boroomi ñoo am ci réew mi bu fekkente ne politiciens yi ngay wax ñoom ñoo def li ni mel wala boroomi doole tamit askan wi nga xamante ni euh, benn baykat ba nga xamante ni euh, sonn na liggéey liggéey mbaam am terrain am ñu def ko noonu li ni mel mu topp cay ginnaaw ñu koy renvoyé tey ak suba finalement yëf yi day dem ba du mujj fenn mais du mujj fenn boobu laa gëmul on dans un pays de droit xëy na dëgg la ñiy dëng ngi dëng mais ñi juba ngi jub ba léegi est-ce que tu sais que dans cette administration y des gens yu ragal yàlla yu ragal seen bàmmeel yu ragal ëllëg xëy na peut-être que bu 80 pour cent yi nekkee ay nit ñu njublaan au moins am na ay 20 pour yi nga xam ne tey ñoom dëgg la ñu doxal moo tax ñu gëm ne suñu justice jusqu'à présent y a des hommes de valeur yi nga xam ne dinañ mën a trancher euh, selon vraiment la justice pour àtte dëgg. waaw mais non on peut tromper une partie de la population pendant un certain temps mais on ne part pas tromper tout tout le monde pendant tout le temps am na des gens hyper puissants yu fu nekkoon te retraité nañu wala ñu affecté leen affectation day am mënuñoo ñu affecté nit ñi et tu peux facilement être rattrapé par ton passé suuf mooy la nga xam ne loo ci def suba dalay dabuwaat moi j'ai été comme chef du bureau de domaine pourquoi ba tey bu ma tëddee damay nelaw laalu ma alalu jàmbur. te pourtant yi def yëpp ñoo leen ko dàqoon ñoo leen gën a xam ni ñu koy defee documents yi liggéey man maa ko defar nit ki da ngay jub loo moomu moomuloo ko fii mun kenn du dee bu yóbbaale ay milliards ñi koy def ñëpp yàlla suturaal na leen jox na leen liggéey jox na leen liggéey jox leen am-am mais pourquoi spolier les biens des populations ay njirim ay nit ña nga xam ne tey jii nii seen bàyyi seen ndey dee nañ bàyyi leen alal gi la nga xam ne tey bu ñu màggee jëriñoo ko ngay jël di jaay àq yooyu. mais ñu yaakaar ne que àq yooyu noonu ça day day day rombe noonu non dañuy nax seen bopp il faut qu'il arrête ce qu'il fasse nit ñi xam nañ lépp lu fi xew man nag li ma ci wax moom mooy pour ma part seetaan gi ëpp na na ceesuwaay yu jug réclamer li ñu li ñu moom ëllëg ñuy ñàkk fula ak fayda di seetaan un groupe wala de deux ou trois personnes nekk fii di di créer ay faux documents du ko dugal ci biir administration bi di génnaat di ko jaay ay nit. loolu moom day arrêté day dakk parce que nous ñu prêts il y a un collectif ki est là on est allé jusqu'à la cour de jusqu'à la cour suprême li ñu jëlal Ceesuwaay yi frauduleusement dinañ leen ko delloo dinañ leen ko fay et justice la justice se rendra incha allahu rabi kooku man man je sais que man personnellement bokk naa ci ñuy dox la nga xam ne pour que Ceesuwaay yi nga xam ne jëlal nañ leen seen suuf ñu delloo leen ko. c'est rassurant en tout cas tey jii xam naa ni donte sax du yomb nee nga yow sa liggéey la jaar nga ci ci sa xalaat bu gàtt lan mooy war a mën a régler problème mu foncier Thiès donte du ma wax définitivement du ma ko wax parce que problème bi le mal est profond mais ci loo xamante ne nii aussi bien si côté gouvern gouvernant yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci liggéey bu ko tegoon euh, véritablement problème foncier dina xaw a boog tane Thiès. mais d'abord ñi fi nekkoon di ko def ñëpp xam nañ leen on a qu'à les affecter ils doivent yàgg nañ fi te seen loxo taq nañ. ils doivent quitter en plus de sa ça c'est numéro ça loolu mooy premier point bi deuxième point bi mais nos dirigeants locaux là nos élus fan lañ nekk bu fekkee ñoom dañoo dem ba dugg ci on a qu'à les on indi fi ay ceesuwaay yu set loxo ñi nga xam ne tey jii ni soxlawuñu alalu luubal alalu jàmbur wala soxlawuñu tey jii nii di dugg ci ay ñombe ñu fal ay nit ya nga xam ne dinañ jubal. dinañ sàmm alalu askan wi parce que un maire da nga war da nga war a garantir la sécurité des biens et des personnes des des biens des personnes et de leurs biens de ta communauté fonctionnaires yi ñu fiy affecté ils doivent être au service exclusif des populations mais war ñoo saay-saayee askan wi suñu éli di ci ànd ak ñoom loolu du yoon association de malfaiteurs la ñi ñaa ngi koy jooy fu ne fu ne fu ne nag ñoo ko koy ñoo lu ne ñoo ngi koy def pour bloquer ces dossiers wala pour fexe du siiw wala bu nit ñi dañ ci wax dañ ciy wax nit ñi ñàkk ñu fayda ba ñu jël seen alal di ko pamti pamte comme sax et si ça le problème de d'abord de la ville de Thiès un problème de leadership ak un problème de gouvernance locale am na ay responsable locaux yi nga xam ne ay maires yi nga xam ne lii ñuy def Thiès kenn ñi moo koo def seen dëkk ku ko fa def tey balaa ngay fanaan yow suba musiba bu garaaw dal la wala ñu affecté la wala yoon woolu la pourquoi nag ñun Ceesaay ñu ñàkk fayda ñu ñëw suñu dëkk di fi def lu leen neex il faut aussi ñi koy def dafa am loxo yu diis yu nekk seen ginnaaw parce que impunité yaakaar naa koo xamante ne da nga cee dëkk dafa fekk ni yëf yi fa mu jógee dafa sori dafa am ñu nekk seen ginnaaw moo tax ñu sañ a def yenn yi ngay def man Rokhaya Ndiaye am na loo xamante ni moo ko defoon comme ni mu ko waxee suba suba yoon dal sama ginnaaw bu fekkee yëf yi dafa persister depuis ce temps là dafa fekk ni xëy na loxo bi dafa jógee fa sori Euh, gis nga am gàllaaj am wéeruwaay dëgër fit xamul lu ko gën ragal yàlla te moytu tooñ nit ki mënuloo tooñ ak gàllaaj boo munte am ak wéeruwaay boo am munte am ba ba ba sunu borom di la di la may ndam ci ki nga xam ne yow yaa ngi koy tooñ dëgër fit ragal yàlla ak jubal moo ko gën ñu koy def actuellement nii nii nii yaa ngi naan dañoo am branlo mais bu ñu tëddee du ñu nelaw fitna gi ñu dund actuellement mënuñu loo ko nettali lu ko fi jar lan moo ko fi jar ñun nag dama lay wax nu sommes des acteurs politiques yi nga xam ne euh, non seulement duñu yàgg ci biir administration mais nu sommes de fins observateurs ndax li fi xew yëpp ñun euh, ñoo ngi suivre peut-être que dañ doon wax dañoo daal woon wax parce que bëggu ñuy wax. di def ay révélation wala ñu ko xam mais tey waxtu waxtu wax def dafa jot parce que bu ñu xoolee ba ñi doon def lii ñu reconduire leen waat après suba bu ñu fa defee leen lu garaaw lu gën a garaaw ñun amatuñu sax droit pour wax parce que ñoo seetaan ba ba ñu reconduire leen je ne sais pas fii si vous vous rappelez <coughs> Ousseynou le jeune Ousseynou Gueye réew mi le fameux dil de Paris aux abords de la Seine bi mu doon nettali démb fi la ñu fekk ce deal c'était quoi parce que les les maires des des des des, des trois collectivités locales ainsi que leur conseil à chaque fois bu vote de budget doon am dañ koy bloqué mu jéegi ñu dem ba le maire de ville mënatul liggéey finalement ñu ne nañ trouver un terrain parce que Avec l'acte 3 de la décentralisation, la compétence foncière revient au maire de ville te comme monsieur le maire moo ne woon moom suuf soxlawu ci dara lu dul bàmmeel gars yi ne kii nañ nañ xool nuñ ko bloqué pour que après mu ñëw ñu négocier ñu dem France France lañ ko toggee cool yi bëri woon na fi lool Ousseynou Gueye moo ko moo defoon sorti sur Thiès Info même fii dénoncé ko mais ce deal la de Paris aux abords de la Seine tey conséquences moo ñu topp ba léegi parce que ils étaient question euh, ñu euh, ay parcelles yu ñu jaayoon fii biir Thiès frauduleusement après bi bi ñu gisee bunt bi ñu ne kat nañ leen dugg ci ay désaffectation yëgaluñu nit ñi yónni wuñ kenn kayit yónni ay nit ay jeunes et a un jeune que je vais citer personnellement un certain Modou jaxate ki nekk fii ñu koy wax Diakhaté géomètre xaw ma mooy leen di recensel di leen jaayal ay suuf fii j'ai des documents et j'ai des preuves fii zone nord moom man am naa moom contentieux en privé ba nga xam ne tout ce qui est la ñu yow lañ koy jox et pendant ce temps où sont les agents de l' administration parce que bugguñu les agents de l' administration xam ku ci nekk ñaata parcelle nga am ak kan moo lay jaayal ak ñaata lañ nga jaay ak ñoom ñun xam nañ lépp lu fi xew. ce deal moom lañu continuer ba tey jii nii conséquences yaa ngi nii. nous sommes des acteurs politiques dañuy suivre te nous sommes dans l' administration fii kenn mënatu fee def dara lu umpe kon ku yabu rek na nga jubal moo tax bu ñu la waxee ne bu ma la waxee ne la Cees waay dañoo mere nañ xoolaat bu baax ci profil yi nga xam ne li même lañ fas yéene jiital bu ñu bañee ñàkk élection yi kooku man maa ko wax. loolu leer na élection yooyu nga xamante ne nii 23 janvier lañ koy man tey ji Ousseynou Diouf ana naka la koy waajalee ci base am ñu ngi tey sa siège yow ak ñi nga xamante ne mooy sa ñi nga àndal di ci liggéey naka ngeen préparer li nga xamante ne moom mooy élection sur le terrain. Euh, comme nañ ko doon préparer ko maa ngi la wax léegi ne la depuis 2014 ba ñu ñàkkee élection yi mu metti ñu lool ci lañ nekkoon doon préparer wu xam nga en politique y a des gens de travail et qui font beaucoup de parce que jàpp nañ médiatisation une très forte médiatisation des activités mooy tax ñoo xam la wala ñii am nañ nit les données politiques changent d'élection en élection promenade de Thiaw Sakh gi mun naa koo feesal ba yéem àdduna bi élection jot ñu duma mu ba ma tëdd ñëpp xam nañ système bi da ngay loué ay nit loué ay kaar defar say t-shirt fay say waykat ñu riiral nga fay ay presse ñu bindal la y a des gens yi nga xam ne dama meeting gu ñu de demuñu ci presse demuñu ci fenn de simple personne yu mel ni yow wala aada tey boo seqee nag ñoom élection ñu dóor la ba nga tëdd xam nga li tax la ngay meeting yeeg yu kenn xamul ñoom ñoo ngi dugg ci biir mouvement yi ci biir jeunes yi ci biir ASC di xool problème nit ñi di ko faj def un contact direct avec les populations ñooñu la ñuy wax les leaders d'opinion nit ñi nga xam ne dañoo amal njëriñ askan wi. ni nga xam ne ñoo ngi faj soxlay askan wi te boolewuñ ci média boolewuñ ci dara gis ngeen fi nii avec le gàmmu la ñaati responsable ngeen fi gis ñu ànd ak ay délégation kër Serigne di photo ko filmé ñaata nit ñeme na maa waat na me li ma def ci foyer religieux yi ñoom defuñu ko te ànduma caméra ànduma ak sax staff politique des fois nit daf may gis sax may dox di dugg ci wit nii daan na may président nangam nangam nangam ma nuyu la rek dem doo sax xam lan laa fa indi. tax doo wane doo doo woo gars yi wane affaire yi ñuy ñi gis ne Ousseynou kat moom mi ngi def comme gars ni muy def. moom laa lay wax bërëgu bu fees daal du def bëri bërëgu bu amul dara rek mooy nekk di kanang kanang yi moo tax ma ne la gis nga élection yi ñu jëm je vous le yuuxu dina jëf fuñ ko foogeewul. y' a plus rien li ñuy wax naan ay alliance bu Sow y' a plus rien man maa la wax loolu nee naa la ba démb maa ngi kër sëñ Xaadim Lo dal te se faak waaye Yewwi Askan Wi ñuy liggéey liggéey bu am solo gisuma fa benn benn benn benn benn benn benn nitu mburoog gisuma fa personne ñun dañuy dox dugg ci nit ñi di seeti nit ñi xam nañ li ñuy wax duñu waxantu bu ma la waxee ne yàq tur fi des rek tur fi des mais y' a rien. léegi nag ci diggante bi yàlla primo-votant ak euh, ñi nga xam ne tey jug weddi dañ te leader léegi te leader la ñuy ànd ak mais moo tax ma la d'élection en élection les dones changent léegi nag bu ñu yaakaaree ne la fi nekkoon fi nekk ba tey ñuy naxanteeki raayante 2014 waxoon naa ne dañu duñu gañe de bii boo deful ndànk itam yuuxu dina jub fuñ ko foogeewul man maa la wax loolu Euh, mairie ville bu Thiès euh, tey jii Ousseynou Diouf kan la jàpp ni moom moo ci meilleur profil candidat yi bëri nañ lool sànq comme ni ma ko waxee euh, ci ñaari coalition yëpp nag tey jii Ousseynou Diouf en tant que leader ci kan la jàpp ni mooy meilleur profil pour mairie ville bu Thiès. mais xam nga nag Roqe <laughs> maa bëgg indi problème yow yaa gën a xam ne politicien ak moroomam tey bu mu nee diw diw mere ma da damay am noonu ci saa si li tax nga wax diw. am naa sama candidat am naa nga xam ne man leer na ma c'est un excellent profil mais tey bu ma ko waxee parce que man jàmm laa seq ñëpp non nañ bàyyi noonu rek parce que tey bu ma ko waxee suba am na ñi nga xam ne dootuñu ma sax woo téléphone vraiment te ñoom ñëpp laa seqal jàmm ñoom ñëpp laa euh, laay demalanteel xam nga te politique pour ñu mere la ci lu yomb la lu ndaw la te àdduna amul solo bon vraiment ki nga xam ne daal moo moo gën ci askan wi yàlla na ko yàlla jox ki nga xam ne nag dafa ñëw pour naxe wala pour nax askan wi vraiment yàlla bu ko yàlla jox loolu daal laa ci mën a wax quoi. jàpp nga ne ki fi nekk actuellement liggéey na bilan boo xamante ne war nañ ko mën a reconduire. liggéey na quand même liggéey na bien vrai que nag man am na point yu bëri d'accord ma moom par rapport ak foncier bi parce que man samay wax duma ko duma ko nëbb. parce que moom moom mooy responsable boo déggee yenn scandale foncière yi nga fi dégg sax yeneen maire yi dañ naan ah ñun bu ñu ci kenn tudd ndax nous sommes pas compétents en matière foncière mais loolu ñoom it dañ koy wax pour làqatu rek ndax ñoom it nan la ñoo ngi yëgu mais wax dëgg fa yàlla moo ngi lu gis nañ fi ay projet yu bëri yu muy développé bon am na yéene vraiment je pense que nag euh, bu changé woon encadrement wut ay des gens de valeur ñoo ko dul nax parce que Sénégal Thiès aussi dañoo mën a jaayaate problème foncier bi muy xew moom monsieur le maire Tall Sylla yónnee naa ko message whatsapp message baa ngi nii kilifa la moo tax duma ko teg mais bu ñu paree naa leen ko tegal ngeen xam pour te dire que ne man j'ai képp ku fi yàlla teg damay dama looy yéene. Tall Sylla est le maire bi mu nekkee fii maire de ville moi je suis le responsable APR bi muy def waañu daara boo ko yónnee une tonne ceeb kooku xam ne yéene naa ko jàmm bi problème commencé. dama ko dama ko yónnee message whatsapp ne ko sax ay rafet na ba pare moytul suuf si mënuma ba nga ñëw ñu waxtaan ci mu boole ma Dieynaba Sall mu dem waxtaan ak moom ne leen def leen ndànk gars yi moytu leen suuf si mën na ko ñi leen di jaay ñi ngeen di collaborer ñëpp ci kàmb lañ leen di dugal ne ko je suis même prêt nga def ma sa conseil domanial gratuitement bu ma fay salaire bu ma fay dara ndax lépp rek ngir yéene la jàmm loolu laa mun nag mais buñ la woowul la kaay. ah sëñ bi nga jàpp sa njàmbur loolu daal lool laa xamal monsieur le maire bon vraiment à part quelques jàmbaar la moo ngi liggéey. li nga daal mooy mu xoolaat entourage am. xoolaat entourage loolu laa koy conseillé wut de très bon conseil nga xam ne duñ ko nax duñ ko jay dañ lay wax li nga xam ne moom mooy bëgg-bëgg askan wi ah mu appliqué ko vraiment daal loolu laa ko mën a conseillé quoi. Ousseynou Diouf nekk responsable politique APR Thiès daanaka egsi nañu suñu cëppaandaw émission dama lay bàyyi rek nga wax li nga xamante ne moom mooy sa dernier mot laataa ñëw tàggatoog mbokk internet suma dernier mot moom mooy d'abord euh, vraiment di woote waat woote jàmm woote ànd woote waxtaan woote waxante dëgg. élection du ay caaxaan politique du ay caaxaan politique. mën naa taalum réew c'est sérieux du foofu du c'est pas un jeu d'enfant kon buñ ko def mascarade buñ ko def foowukaay c'est du sérieux élection yi jëm dafa am solo pour askan wi nañu xool doomu Thiès yi nga xam ne vraiment seen loxo set nañ irréprochable exemple de defoo ñu jiital leen ci liste yi damay ñaan président Idrissa Seck ak président Macky Sall ñu consulter la base woote une de large concertation ba nga xëy nga xam ne on va faire vraiment revue de tous les maux des Thiessois bu ko defee mu ñu am un programme politique ba nga xam ne discours bi dinañ ko porter bu ñuy dem campagne ci Thiessois yi ñu dégg ko la jotoon a yàqu. ñu jëm ko rectifier suufu jàmbur yi ñuy jaay ñu jëm ko rectifier même bu dee beneen loti beneen lotissement bu bees bu ñuy defar fay nit ñi seeni suuf loolooy dëgg bu ko defee nit ñi seen mer wàcc ñu xool projet de société yi nga xam ne buñ ko porte askan wi dina ci ànd ñu défendre ko yàlla mun nañoo may ndam c'est pas encore trop tard loolu laay woote damay woo nag sunu mbokki waa réew mi itam di leen wax ne. bu ñu demee ba yàlla boolañ ci benn dëkk ñu bokk nar a bokk benn coalition dañuy joxante cër joxante cër moom mooy àndandoo xeexandoo bu ñu yàlla mayee ndam ñu partager les responsabilités ndax mbir mi nag du ndono ndeyu kenn wala bàyyu kenn ba ñiy taxaw naan ñun rek ñoo ko yeyu ay doomu Cees lañ ñoo bokk Cees te ñu ko dagg xaajaale ko ku nekk jël sa wàll munta ne kon ñun ñi nga xam ne ñooy doomu Cees nañ ànd liggéeyal Cees woote boobu daal laay woote di wax nag ne Ousseynou Diouf jusqu'à présent du dem naa ba nga xam ne sax waxutuma man mais ñi yaakaar ci man am yaakaar ñoo ne bëgg nañ Ousseynou Diouf ñu jiital ko ci mairie boppu Thiès Ouest bu mënee ne mais lépp nag ci kaw waxtaan ak jugo ndax dañ cee am yaakaar duñ ko liggéey vraiment ma di leen sant sant encore une fois de plus yow aada sa patron Sey Latir ci dalal bi ngeen ma dalal émission bi gàtt na mais neex na lool macha allah liñ fi wax yëpp am na solo yàlla na nekk njëriñal askan wi yàlla na nekk njëriñal Ceesuwaa bi Ceesuwaa yi di leen sant encore jërë ngeen jëf merci beaucoup. ñu koy jaajëfal bu baax a baax mi ngoog mu nekkoon seen émission politique à Thiès doon ci dalal Ousseynou Diouf responsable politique APR Thiès euh, su ko defee rek dañ leen di jaajëfal yéen itam mbokk internetu Thiès info yi nekkoon duñu setaan dig daje bi beneen yoon lay doon incha allah beneen kàngam ci langue politique gi émission bi la di politique à Thiès fii ci biir Thiès info jaa ngeen jëf.